la religion et la culture au service du développement. Le pot de chacun de nous pour le bonheur de tous, la solidarité à l'état pur. Safina, système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Safina FM, retour aux bonnes valeurs. Formation et éducation, éveil des consciences. Notre credo, quitter le bien pour Aspirer au meilleur.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 te ni dégg nga émission bi di nga ci jariñu ngeen ànd ko ak seen mbokk alxaaji Massyla Kane di boroom xam-xam tey joxe xel mu rafet tabaarakallaahu ci laaye biir an nasiha fii lay amee bu ko kenn di tarde na ngeen ko bàyyi xel alxames lay doon diggante 9h ba 10h ci rajo Safina FM 98.2 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 rajo Safina FM 98 point 2 tabaarakallahu ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo jëmee ko ci mbooleem auditeur ak auditrices yi nga xam ne tànn nañu Safina muy seen daara tabaarakallahu di jégglu ñëpp ci absence yu tegaloo yi waaye itam eh, jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ñu teew fi tey nag tabaarakallahu e, wara a dellu siwaat sof waxtaan ci sunu émission bi ñuy wax an nasiha muy laaye biir te yonent bi wax ne ad diinu nasiha tabaarakallahu ngi ndokkeelit Cerno Hamidou Yoro Bane gannaaw bu ñu ko nuyoo ci ñetti fan yu reuy yi mu taxawal fii te lépp diwan ñul julit yi tabarakallah am jangum alquran am ay am daax yo xam mi ngi jëm ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam am ay conférence am ay teranga yu mu doon jox leen ay mbokam ak talibem tabaarakallaahu am ay consultation gratuite yooyu yëpp mu di ko def ibtixa amardatillah di ko séentu ba yàlla dogal mu romb ci weekend bii ñu paase yàlla def ci tawféex na mu ko bëgge woon yàlla defal ko lu kawe njortam àddina sépp wàbb wuy si ko mu jël cër ba bépp jox ko Cerno bashir Taal moom mu toog ca gannaaw di ab surga waaye loolu amul benn wàññeen nitu yàlla ba dañu ko laaj ni ko lan mooy àgg ci yàlla ñu laaj ko ko ci baatu arab ni ko man nihaaya luy àgg mu ni al awdatu ilal bidaaya mu ni nangoo dellu ca suufa suufa suuf dina tegtale ak àgg moo tax ñi nga xam ne ñaare nanguwuñoo jege suuf benn yoon ñi nga ñi nanguwuñoo toogee gannaaw benn yoon ca kaw ca kanam rek ñu ci ëpp seen baatin màbb na waaye yàlla bindee ko su mbooloo dajee ñu yaakaar ni day daldi xëcc lu canapé ba ca gën a rëy firi ay grand bu bam toog ca ñëpp des ci suuf waaye boo dikkee mu nax la daldi seet lu gën a suufe la nga toog toog ca di participer ca waxtaan ya di noo ak nit ña bu ñuy dem mu def tànki neen gunge leen yooyu day imaamu Shafii yi nee na képp ku ngeen gis zahiram ñor ko lool lool lool lool la plupart baati na màbb na kon Cerno Hamidou Bane tabaarakallaahu yal na ko yàlla gën a dollee jàppale ñi ko wër ñépp defu leen ni taalibe ay mbokki taalibe la leen def wala ay soppe rek waaye taalibe moom jàppiwu ko kenn waaye yonent bi sallallahu alayhi wa de nee nañu raam ku ñëw ci moom sol mbumu rafet manto bu rafet ànd ak beneen waaye waaja yenu waxande topp ci ginnaawam sol mbumu xar ba ñu agsee ki sol bu mu rafet mi comme moo jiitu te mel na ni mooy kilifa mu nuyoo ka yanu waxande wa te yére ya dagg ñëw moom it nuyoo yonent bi daldi laaj ki ci kanam te sol bu mu rafet mi ni ko kii nga àndal kumu mu ne ko sama surga mu ne ko bu ëllëgee nanga ko wutal mbubb mu mel ni mii nga sol te waxande wi mu yenu bu ko ko yeneti mom kep na japp ci kay nga japp ci kay ngeen japp ko yeen ñaar te bul ko woyé te sama surga de ko woyé sama mbokk jangale momu nak ci la tier noy dox ku doxu ci yoy it da ngay sonu nak ndax nit ñi dañuy tricher rek ñu kenn wa bo ne dal kaw bëgg ne ñu dal lay bamu kawé tek la fa tok ci suuf di la xel ak xol soo ne ca kanam laa bëgg na ñu yóbbu la fa teg la fa pare di la jéppi loolu nag li gën mooy fa la yàlla teg nga tegu fa mooy niveau bi nga am nga yem ci niveau boobu rek benn yoon noppalu loolu tax tabaarakallaahu ñu ko topp ñëpp loolu yonent bi te yàlla waxoon yonent bi ni ko wa bi rahmatin min allaahi linta lahum walaw kunta fazan galiza alqalbi lan faddu min xawlika ni ko ni ko yërmande yàlla ak mbaaxam deg rek moo la dimbali ba nga nooy nepp nepp ni wëttéen ci ñii la wër boo noon kedd këddeeral wow kon kenn mun laa jege kenn munu laa ñeme nit ñi duñ la wër dañuy dem seen yoon dana yàlla jàppale ko uh, bis boobu nay ñëw di ñëw di ñëw di nuyu sunu directrice tabarakallahu waaye itam di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah, ci tiis woo xam ne dafa dal chamatijani kan

di ko disponible di ñayu xare ci diine ji tabaarakallaahu di Cheikh Ahmed Tidiane kan ñu naan ko Ahmed Tidiane kan yàlla dogal mu génn àdduna tabaarakallaahu fële ca Niger ci tukki bu mu tukki woon waaye ah yal ko yàlla yërëm te yonent bi wax ni boo dee doxandeem ci ci àll tukki daanu xool sa ndejoor gisoo ndey xool sa càmmooñ gisoo baay gisuloo koo xam nee na nga génn àdduna ci anam yooyu jéggal nañ la say bàkkaar ndax tristesse ba ca nekk kon tabaarakallaahu rajo bi rajo Safina am nañu tiis waaw maa ngi maa ngi jéggalu nag ci tur bi ni ma ni ma ko indee dama ci juum Serigne Abdoul Aziz Abdoul Aziz ñaare comme dañoo am Cheikh Tidiane am Abdou Aziz sëriñ Abdou Aziz Kane moo demoon ca Niger yàlla dogal yàlla daf la gën ci moom Abdou Aziz moomu nag tabaarakallaahu nekkoon fii ci rajo bi di def émission ni ñu koy defee ah musul am benn xar kanam boo xam ne dina ko wan ñi mu ko seqal buy wane ni kii tàyyi na walla sonn na ba yàlla dogal li mu ci dogal tey jii tis boobu rajo bi ak mboolem auditeur rajo bi tabaarakallaahu ñoo ko bokk kon oustaz Abdou Aziz Kane eh, ñu leen di xamal ni yàlla dogal na bawoon na fi jëm barzax yal na ko yalla teeru te teral ko ah ñu ngi wax itam mboolem auditeur yi ak mboolem personnel bi nek ci radio bi ni comme mi ngi ko ci Niger ak seegul koor bi ak seegul waaye inshallah information yépp Thierno dina len ko jox ndax deej bi tabarakallah wax deug yalla dëju radio bi la radio bi ñom ñoo ñak kon su ko defee na bu ñu waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñoo ngi ñaan yàlla bu ñu yàlla nattu gannaawam yal na ko yàlla teral su ko defee dañuy continuer rek ci émission bi bala temps bi di sori niñ ko daan faral di defee rek mooy laaye biir laaye biir nag ñaare bu ñu nee ñu ngi laaye biir sax am na ñu bari dañuy jàpp ne xëy na dañ koy moomale ñu ndaw ñi bàyyi ñu mag ñi waaye a ah, ku ci gis sa bopp rek mën nga ci jëriñu ñu daan dàkk itam xew-xew yi di ci ubbee di ci waxtaan eh, jamono yi du toll ku ne xam na ni woote bu rëy bële nga xam ne sunu maam ju baax ji ci tuuba Eh, tabaarakallaahu woote na ko nit ñëpp dal di wutali dëkk bu tedd boobu te dara daxul lu dul taataan yiw rek ak yokkute rek ak mbaax ñu di ko xañtu fu nekk senegal eh, yàlla dafa dogal ci ñoom ñu bëgg lu baax bëgg ku baax ba mbaax googu fu ne lañuy daw di ko fa wuti waaw jamono ji nekk am nañu fax daw wuti béréb ndax yaakaar jamono ji nag nit ñaa ngi wàbb wutali tuubaa ngir waajal màggal gi ah su ko defee itam ki nga xam ni mooy sababu mbir mi di xaadimu rasuul jaamu yàlla jaamu gu sell bëggul dara lu dul ngërëmu boroomam tagg yonent bi booleeki di ko jaamu wala tagg yonent bi di ko sopp lool yemalewu ko kenn kooku nag bu ko yàlla fayee nattee àndaar fay ko yonent bi natt àndaar fay ko ñaari pay yooyu benn bu ci nekk rek doyoon na waaye la ca mat a jànge rek mooy xam gi mu xam fi muy dëgg tànkam ngir am li mu bëgg lépp te mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa topp ndigalu yàlla bàyyi ay tereem moo tax bu ko gàngoor toppee ku ko topp rekk boo xoolee moom ni mu doxalee boo na doxalee rek àgg fa mu àgg bu yombul it yow di nga sori lool te mooy topp ndigalu yàlla bàyyi ay tereem sopp yonent bi te roy ko su fekke nak da nga ni yang koy top wala yang koy sopp te topo yalla sopo yonent bi man nga ci daw ba son te waxuma ag famu ag me jege ko sax dula la yomb yu melni nak bu jubee ñeppay wab dem ñi seeni pass pass sel ñi seen cofeel sel ñi di deug ak ñi nga xamni ni nak dañuy demandoo rek te demandoo gi yemuñu sax ci ñàkk pas-pas ak ñàkk sell waaye dañuy dem ngir def fa loo xam ni ka bés ba bugg ko woon yonent bi mu daan tagg sopp ko bugg ko woon yàlla mi mu doon jaamu bugg ko woon sëriñ Moussa ñu bari xam nañ ko mooy werekaanu sëriñ Touba bari na yu sëriñ Touba taalif arab mu wolofalaat ko ku yàlla may la ci làmmiñ wala fu set daf daan wax ni naafeq yaa ngi dox di raam ngir jamono jàngal iza laqul ladina amanu bu ñu ñëwee Touba niroog waa Touba te bu ñu ñëwee ci réew mi mel nii Kooba waaye di ngeen xam ne Serigne Touba mënee su koo nax mënee su koo jommal ku taw lu day tex tex mooy bu taw bu tawee ba tooy te fekk foru woo woon nga damaatal bàq ba daal di cay ji lool la wolof di wax tex mooy ji ci kaw bàq boo jiyee te tawagul nag faru la ko wolof di wax moo daal di ni nag naafiq yaa ngi raam ngir jamono di raam di raam di raam waaw ca buntu kër ga su mu sey dàll wacc ko fa di raam di raam di raam te dara jamono rek ak intere moo tax waaye du dëgg ci yow waaw mu ne nag ñuy raam nag boo leen bëggee xam mooy misaalu ñu yàllay wax ni yonent bi naafiq yooyu nga xam ne ida laqu alladina amanu qaalu amanna bu ñu dajee ak ñu gëm ña ni gëm nanu wa ida xalaw ila him bu ñu demee nag ba ca ci seen morom ya ñu bokkal mbir dëgg-dëgg nag dal di wane seen boppam dal ni leen ñun ñun yeen ñii lañu àndal lañ leen doon nax dong waaye nun gëmunu ca lañ doon def dara mu daal di indi chatu aaya ba rek duggal ko ci beuyit bi pour wané ni ñi mu gis ni di ram di ram di ram ba ag amna ci ño xamni lañuy la ñuy raam gëmuñu dara mo nafiq yoyu doon wax yonent yalla doon wax yonent bi ni ko ñom ñoñu buñu ñëwé ci biir julit yi dañu naan gëm nañu waye buñu delu waté ci seen morom ya nga xamni yem ci weddi dal di leen ni bal leen nun yéen lañu andal dañu doon saboté rek waaw mu ni nag naafiq yaa ngi dox di raam ngir jamono jàngal ida laqu alladina amanu bu ñu ñëwee tuubaa ni roog waa Touba te bu ñu delloo ci réew mee mel nii kooba waaye di ngeen xam ni Serigne Touba mënee su koo nax mënee su koo jommal ku taw lu day tex mu nekkoon nit koo xam ni li mu wax ci yonent bi kawe naa kawe lool lool lool lool ba jëlati nit sax teg ko fu kawe yonent bi doo am place boo ko defee ni ni sama lépp nag moom laa ko jëme waaw mu ne ci xasidaam bi nga xam ne wax nañ ni bu a tëju sax boo ko nee der di jàng boo moytuwul balaa ngaa àggal mu ubbi ndax daf ko woy ci xaal bu ko déggatee rek xaal bi daal di déclenché waat te mu lépp mu wax ko ci yonent bi di ko misaal rek waaw misaal na yonent bi ci misaal yu nekk wax na ci biir xasida bi ni bahrun wala bokk fale lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi lakin ida lam yakun li shams izharu booba mu ngi gaaruwaale yonent yi tudde leen ay weer ni yonent yépp ay weer lañu fees ci asamaan si dell weer nag leer na ñu ngi tey leerlu waaye nag bu jant fenkee ku doon leer leerlu di nga fatu ji xam ni ka leer dëgg agsi na muy jant bi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi lakin ida lam yakun li shams izhaaru mu ni weer de leer na lool leer ga rëy na lool ñu ngi cay leerlu waaye nag mu ñuy leerlu ci leerug weer dafa fekk jant fenkul lil badri nuurun azimun yustanaaru bihi lakin ida lam yakun lishamsi izhaaru mu ne ci beneen misaal mu ne tey ji yonent yi mu leen di gaaruwaale ni ay ñax lañu ay ñax ñax goo xam ne nii boo ko bëggoon a laal da ngay sëgg ndax jege suuf gi mu jege suuf donte nag kawe na ndax jóg na tuuti mu nu yonent yi ay gettax lañu maanaam ay gubi dugub wala ay gittax nee nañu ñokket ba tiim ñax yi ci suuf yëpp baraw leen waaye nag boo leen dee tudd ak di leen naw dafa fekk wëlbatikoo ko xool garab bu ron su boobaa di nga fàtte gittax boobu guddaayam bi nga doon xalaat mu ni lil qas bi nuurun lil qas bi tuulun la daa aynin lahu nazarat lakin ida xawlahu lam tan bu tas jaaru mu ne gi tax day gudd na lool ca bët ya koy xool waaye nag boo dee waxub guddaayam dafa fekk xooloo garab bu ron mu ne ba tey yonent bi bu yonent yi dee ay gattax ci guddaay ba ñu leen di naw bu ne bërit di ron mu joxewaat ci misaal lépp yonent bi rek yonent bi kaweel rek kawe di ko yóbbu foo xam ni xel xalaatu yóbbu fa keneen mu ne yàkkoonu lil biiri maa un taaba mashrabuhu lakinnahu min xaliijil baxri aqtaaru mu ne bu dee yonent yi ay ndox lañu moo xam muy ndoxum teen moo xam muy ndoxum dex ndox mu mu ci mëna doon lu mu bari bari bari ba nga di ko naw nee na boo ko dendalee ak océan muy géej ak toq dong la ndox moo moomuy doon mu ne yàkkuunu biir yi nekk na di ñeel ab teen maa un ndox moo xam ne taaba teey na mashrabuhu naanu waayam waaye nag laakinnahu liy mbir tey mbir min xaliijil baxri soo ko nattalee ak géej nee na aqtaaru ay toq toq dong la mu dellu joxe ci misaal ci bu dee taw mu ni ab tallu maa un wala kalwabli mun saji man wala tujaarin nada bilmaa i am taaru nee na ab lay tooy xipp ñu ne ah tey de lay na ba tooy ndax la cay feeñ ci ndox waaye nee na bu taw waame agsee dootoo tudd lay mukk nee na yonent bi mooy taw waame nee na yonent boobu nag lu waay mën a wax man moom laa yaakaar mooy sama wéeruwaay moom laa yaakaar pour mu musal ma ci bépp loo xam ne luy lore la àdduna ak alaxira yàllante ëllëg ma dëkk ak moom mu ni zaaka al malaazu lazi arju najaata bihi dunya wa uxra fa layti xawlahu jaaru nee kooku nag mooy wéeruwaay woowu nga xam ne nee na maa ngi yaakaaru mucc ci moom àdduna ak àllaaxira yellante ma dëkkaale ak moom tabaarakallaahu bés ñëw ak jamu jànkoonteel ci ay jafe-jafe yoo xam ne séq na ko noon yi ba mu demee ba la doon wut mu am ko moom ñëpp xam nañ ni nee na na leen waaw ndax booy xëccoo mbir ba loola tege ci sa loxo ah boo re boo yaatalul sa dënn rek déggoo déggoo mbir ma mu ni baal na noon yi kon tabaarakallaahu ah ñi jog ni ñu ngi dem ne leen yàlla yóbbu waaw na leen yàlla yóbbu ndax koo xam ne léppam yàlla la woon ak yonent bi booy def ci mbiram da nga koy def ngir yàlla bu ko defee nga dëppoo ak bànneexam ak bëgg-bëggam te nga bañ koo def ngir àdduna ak puukare ah dañu nekk ci jamo boo jamono boo xam ni itam Sénégal moom noonu la ñu bindoo sëriñ si dañ leen a comme ay mbëri làmb di leen gemb di leen yóbbu ca géew yi ñuy bëree te loolu taxul loon ñu jóg ndax kenn ku ci nekk boo noy bërit di wut ñoo jubal boo fekkee ku leen di jubal da nga koy gërëm rek jàll ci ñeneen waaye buñ buñ dellu siwaatoon jamono bi ba gis ndax tey jii képp ku jàpp ni ku war a jubi rek yaa ko war a jubal keneen waru koo jubal xamoo ni kon njub njub rekk la ñoom nag tey jii bu ñu naan bëreet di di seeti gàngoor pour fudd leen jëme leen ci yàlla bu ñu fekkee ku cat mel ni ñoom di leen fudd dañ koy ñaanal yàlla gërëm ko jàll ci ñeneen ñu jubagul fii rekk nag ngay gisee koo xam ne boo sañoon ñépp ci sa wuyoo ñépp ci sa kaw lañuy ñuy daw jëm ala dogal xasida bi ma tiim te ñu wax ni ci mbindam la bokk même bu fekkee bind ko tam siwal na ko ñu tuddee ko mujj gi jamono te mu di ci wax ay misaal yoo xam ni day boo duggee ci biir rek di nga xam ni loolu yëpp noo ngi koy dund te looloo tamit ak jàjje la goo xam ni war na kenn ku nekk bàyyi sa bopp xel ndax tey e, ñu baree bari ci biir xasidaam yi lañ koy fekk lañ ko fekk waaw donte ñi nga xam ne ñoo yore wàllu saytu xaside yi nga xam ni moom la bind ak yi nga xam ni yàlla dafa dogal mu rafetlu ko jël ko boole ko ci way ndareem ni lii day baax na ma wax ko ak ku ko mën a wax comme baax na mi ngi nii nañ nañ ko jëfandikoo loolu ku ne xam ne dina ko def dina ko jëfandikoo ndax téeréem boobu ñu wax na juqala il hajj dina ci dem ba ay abyaat yoo xam ne dina la wax ni abyaat yii maa ngi ko jëlee ci diw waaw toxal maa ngi ko toxale ci diw indi ko fii dina koy faral di wax loolu la tubaab yi intellectuelle moom l'essentiel comme luy jubal luy jubla jubale du ko romb mukk te fekk baax na ndax comme jub jubal nit ñi rek ak jàngal leen ak yar leen moo ko tax a jóg njëfandukaay bu mu romb te mu man loola da koy jël pour utiliser ko waaye du ci jublu rek lépp loo xam ne taalif ma ko binduma ko ma ko indi ndax daf may tuutal donte li mu taalif kenn xamul nu mu toll waaye am na ci yoo xam ne dafay wax ni maa ngi ko jëlee ci mbind sàngam téere bi ci biir wax ji eh, am na misaal muy wane ne lu mel noonu am na ci ndax bu waxee ne xam n li dil ماجي سانت بروم ماجي جيك تيد جي موي سونو بروم تبارك وتعالى سوما صلاتو مع السلامي توب خيولم اك موتيم على الرسول مدة سلامي يلا نيك تي نانتام بوبو ديرو الاسلام غي دوخ وآله وصحبه الأعلام أك أي صحابة أك أي نيونيام يوي نغا خامني نيو راني كول نيو خام لا دي أي درابو وبعد من غناو لولو نك فهذه الوصيه كونسي بي ولا ندين كان لي nee na naafiatun jamilatun suufiya nee na nee na am na njëriñ rafet na sufiyanke na sufiyanke moom la tubaab dax mystique mysticisme nee waral li ngir dajale awamir awamir arrahmaan ay ndigalu yalla, wa sunnata ak sunna yonent bi dil furqaani mi nga borom alquran ci moom lañ ko wàccee mu ni wa annaha te moom téeri si kat kathiratul maani bari nay maanaa lol, ma annaha ànd ak téere si kat xalilatul maydaani téere si tuuti la mu ni wa anna euh, xalilatul maydaani gàtt am lef la mooy tuuti la wa annaha te moom téere si nee na tun ji mi ne niiraan yi soo ko dégloo bu baax a baax attentivement te jëfe li ma ci wax nii nee na day musale ci sawara wa annaha di el jinaani te nee na da yóbbu ci aljanna ndax lu la musal ci safara rek ma nga lay yóbbu ci aljana nee na wa annaha téere si itam daafiatul bawaari dafay fekk alkane wa annaha jaalibatul anwaar yi day xëccit ay leer ndax lu lay tàqaleeg alkande rek boo moytuwul mi ngi lay xëccal ay leer mu ne il kullu ma fiha te lépp loo xam ne mi ngi ci téere si minal masaili ci ay masala yaa ngi dégg bu baax wa maa ma laha aidan min ad dalaili ak lépp loo xam ne téere bi am na ko ci ay tegtal nee na naqaltuha maa ngi ko tuxalee an kutubil axbaar yi ci téere yi fóore yi nga xam ni assaalikiina dañu sóobu woon maslakal abraari yoonu ñu baax loolu ci ngay xamee ni honnêteté intellectuelle bi ma la wax am na su gisee loo xam ne lu amal njariñ jullit yi la da koy jël indi ko boole ko ci mbindam boole li mu bind waaw loolu du wàññi ci mbindam dara mu ne nag mat munuha làq téefu téere boobu nag téere sii nag nee na awaamiru rahmaan yi nee na ay ndigalu borom bi dong la wa sunnatu rasuli ak sunna yonent bi zil burhaani mi nga xam ne borom lay lawul layar nga xam ne ëllëg ku mu layal yay la mu ne wa annaha naka moom it téere si jaalibatul maraam yi dina xëcc ay càkkutéef nga di ko xool di ko déglu di ko jëfee dina la xëccal ay càkkutéef laha liman maa la minal aqwaam yi te tamit presque li ko gën a tax a jóg mooy ñi nga xam ne dañoo jeng ci nit ñi ndax dafa am ñoo xam ne dañoo jeng de euh, euh, génnu topp mu ne nag fi ma koy tàmbalee di wax ak yéen di leen joxar bi di leen wax ne aleykum war na ci yéen yéen ñëpp laa wax nag yéen ñan yéen jullit yi عليكم ورنتي يين بطاعة الرحمن توب يلا توب برمبي يا جملة الطلاب ين بولم طالبي والإخوان أجي ين بولم بقي وخو مكو طالبي كسي باي مبقي مبقي موي ني أسكنو تي من أك طالبي يين نيب بولي نيلين عليكم ورنتي يين بطاعة الرحمن توب يلا يا جملة الطلاب ين بولم طالبي والإخوان أك مبقي waaye topp yàlla googu du tëb tëb ni dara di topp yàlla dafa am lu ko war a jiitu nee na baada taallumin ginnaaw bi ngeen sàkkoo xam-xam ba bi aadaabi te xam-xam ba na ànd ak ay teggin wa kullu di yunji min al azaabi ak lépp loo xam ni day musle ci mbugal wa bittibaayi ak di toppi sunnati rasuli sunna yonent bi wa sunnati sahabati al uduli ak sunnay sahaaba yi nga xam ne ñu maandu lañu wa bimtisaali ak di roy am dil jilaal jalaali ndigalu borom màgg gi te mooy sunu borom tabaraka wa taala wa nax yi ak bàyyi ay tereem ilal maali jëm ci e, nango nangu moomeelam waaw mu ne laa tushriku billahi bu leen di bokkaaleeg yàlla yaa ixwaan yi yéen samay mbokk li annahu ndax bokkaaleeg yàlla yahdi ila niiraani day tax a dem safara bokkaaleeg yàlla mooy ni yàlla yawa ni keneen yawa yàlla wax na ci xadis al qudsi ni inni wal ins wal jinn ala naba in azim nit ak jinne fokk ma dem ak ñoom ci yoon ñu ne ko lu tax mu ne xalaqtu dama koo bind fa yaabudu xayri mu jaamu keneen wa razaqtu ma wërsëgal ko fa yashkuru xayri mu sant keneen kon fokk ma dem ak moom ci yoon loolu lu Sëriñ Tuubaa di wax ni laa tushriku billahi bu leen di bokkaale yàlla yaa ixwaani yéen mbokk yi bu leen ni yàlla yow la dellu ni keneen yawa li annahu ndax loolu yahdi day yóbboo ila niiraani safara laa taxtulu nafsa bi xayri nafsin bu leen rey nit koo xam ni yayoowul rey waaw mooy koo xam ni nii dafa faat bakkan comme li ñu wax ne an nafs bi nafs bu ñu rey koo xam ni reyul bakkan waaw mu ne nax nahyuhu tereek loolu mooy rey bakkan bu reyul bakkan badaa ak tereem feeñ na bi xëyri lab si te lëntul leer na nañ yàlla def ko tere loolu nag la nga cay dégg mooy bu leen rey ku reyul loolu mooy ku rey nañ la rey wuute wuuteeg alquran ndax dafay am wax yoo xam ne day tontuwaale beneen wax bi la taqtulu nafsa bi xëyri nafsin bu leen rey bakkan bu reyul bakkan loolu beneen prix la amaat mooy kon ku rey bakkan nañ ko rey bu dee def ko tey mu ne id nax yuhu ndax ak tereem badaa feeñ na bi xayri labsin ci lu dul lënt lëntul mu ne maa la xayrikum maal maylaani na ngeen moytu itam lu ngeen alal lu jàmbur alal joom moomul bàyyi leen ko fax alal joom moomul ba fa la tudd mu ne bi ci des it maa ngi leen di dénk ijtanibul xibata wa riyaa na ngeen moytandiku jëw ak ngistal yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena al ghibatu ashaddu min az-zina iyyakum iyakum ghiba fa inna al ghiba ashaddu min az-zina wa inna ar arrajula qad yazni wa yatub fa yatub allahu alayhi wa inna sahib al ghiba la yaghfiru llahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu yonent bi nee na na ngeen moytandiku jëw parce que mo na ngeen moytandiku jëw ndax mo gën bon njaaloo mais nag njaaloo sax mën na tuub yàlla jéggal ko nangu tuubam mais ki jëw yàlla du ko baal lu dul dafa dem ci ki mu jëwoon balu ko ba kooku baal ko mais tudd na moom ci téere bi tudd na ñaar yëpp ndax daf ne laa taq taqrabu zina maa tuxyaani wa maa la xayrikum maa al maylaani waaw boobu bayta jiitu waaw ne laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo maa tuxyaani ànd ak mbewte wala bew yi la xayrikum maa al maylaani bu leen jege alal jàmbur yi ànd ak jàngkat yi ni nag na ngeen moytandiku jëw جو momu nak la yonent bi wax ni mo gëna bon njaalo ñaari hadis ñew na yonent bi wax ko ben bi ci jow la ben bi ci njaalo bi mu wax ci njaalo mom yonent يذهب البهاء عن الوجه ويقطع الرزق ويسخط الرحمن ويوجب الخلود في النار نانا موي تانديكو لين جالو باسكو امنا نينتي كونسيكونس كونسيكونس بو جيك بي موي داي تاخا نياو داي يوبو تارو كانام بو نياارل بي موي داي dagg wërsëg bu ñetteel bi day waral njëppite sunu boroom bu ñeenteel bi day tax a dëkk safara moom jaaloo gis nga ni mu bone ñeenti conséquence am na ci ba pare nag yeneen bi wax ne na ngeen moytu nag jëw ndax jëw li njaaloo moom di garaw lépp jëw a gën a bon parce que ki njaaloo sax amaana bu tuubee yàlla nangu tuubam mais ki jëw yàlla du ko baal lu dul dafa dem ci ki mu jëwoon balu ko ba kooku baal ko mom nak la serigne bi lëkkale ci beuyit bi dal ni la taqrabu zina maa tuxyaani wa maa la gayrikum maa al maylaani ijtanibul ghibata wa riyaa wa suua wal munkara wal fahshaa moy tandiku len njaalo mais également moy tandiku len itam jëw ak ngistal ngistal moy def jo xamne gaaraloo ko yàlla waaye nit ñi ngi koy gaaral pour ñu ni jàmbaar nga wala gëm nga yàlla wala ragal nga yàlla wala baax nga bu ñu ko xësee wax rek yool baa ngoog ndax loolu nga ca jublu woon amatul yoolu ëllëg mu ni ak lu ñaaw ak lu ñu sib ak lu bon wan leen gannaaw lu bon loolu jullit bu nekk war na ci bàyyi xel yàlla tànn aadama toroxal iblis kon nag jullit yi doomu aadama yi war nañoo fexe ba yàlla ay noonam duñu ko reetaan te bu toroxalee iblis jël ñu teg ci kawam <coughs> jël maam aadama teg ci kawam jël njabootu aadama teg ci njabootu seytaane ñu dem a dem a dem ba nit ñi wàbb bàyyi fa ndigalu yàlla toppi seytaane kon yàlla ay noonam dinañ ko ree mu ni ci mu leen di tere itam namimatan kisban wa kibriya ngeen moytandiku rambaaj ak fen ak rëy bu ci nekk danger bu rëy ngi ci yeneen bi nee na kuy rambaaj du fa dugg aljanna laa yadxulul jannata nammaam nee na du fa dugg mu ni kon na ngeen ko moytu mooy fexe ba ñaar ñu jubboo nga sol say dàll di dox ba dootuñu tuddante bi ci des kisbaan muy fen as fen waxul sax fen dëgg mais as fen lu mu tuut tuut tuut moytu leen ko ndax inna allah yaktubul kisbata wal ba yàlla dina bind fen wu rëy di ko ak fen wu gën a tuuti fen wu rëy ak fen wu tuuti yëpp dinañ ko enregistré wa kibriya ak rëy rëy yàlla nee na sama mbubb la maa ca war a dugg maa ko war a sol ku ma ci fekk nga sol ko dina ko xotti génne la toroxal la lakk la waaw rëy rëy lool riyan xiyaanatan kadal mira tuddaat na ngi ngistal ak wor tudd na werante wor lu baree baree bari xam nga wor lañ ca xamone bu jëk sax moy seq nit dëggal sa kaddu mu dëggal kaddu nga dem ba ci bir nga war ko waye wori legi ba ngeen di tok di wax ci saasi te gennagu len dem fa ngeen jëm nga lal ay wor yow su ngeen demé ba ci bir da ngay dal di def réagir rek dal di appliquer la nga façon ci sa xol waye war yow nga toge nga ko façon mu ngeen ko moytu war lu yaatu la amna ci entreprise yi waxna ko fi ben waxtan associé nit ngeen ne dañuy ubbi entreprise dañuy ubbi société mu def ca nga def ca ngeen def seeni démarche ñu dem a dem ba wenn kayit woo xam ne nii rek mën naa dévier entreprise bi ci yow ndax yow yaa ko indi te andiwu ko nga dem ba xéewal feeñ nga daal di boycotté daal di wor te ragaloo ca dara yooyu nag bu neexee itam dina naqari ji ca kanam ba bu ëllëgee yomal xiyam boo nee cëpp nañ la dinañ la taxaw téye wor dina amit ci sey yi dina tambale ci ngoro yi waaw waxante nit mu bàyyi la mu jàppoon lepp dépendre ci yow ndeke yaa ngi sa beut di xol lu ko tane ba nga dem ca waye and bi nga and ak mom yépp du and bu sincère and bi and bi rek dang koy koy ko rek bo lu ko tane rek nga dal di rocc sa loxo dem sa yoon dina amit ba ci biir sey dem ba ci biir sey bi la nga ak mom dootoo ci respecté dara dina dal góor dina dal jigéen ba tax ndaw si bi mu xuloo jëkkër jee ba ku nekk jàpp sa bopp te muy ndaw su yiw ku ñu yar ku am sutura te ñu laaj ko ni ko sa jëkkër dafa mel ni fan yi da ngeen a jote lu ngeen da ngeen a xuloo lu ngeen jote lu leen jotale muy jigéenu sutura ndeysaan te bëggul weer ndax xamul fi dafay mujj mu ne ko dang may laaj lu ma ak moom mu ni ko waaw mu ni ko la mu ma waxoon yépp ba ma bàyyi ñépp sëy ak moom loola la bàyyi defatu ko loolu ma ak moom ci ku ñu yar rek ak sutura war lu yaatoo yaatoo yaatu la bu ko don topp fii waaye yooyu yépp yàlla dina ko régler ëllëg waaw nit dina la war feeñal war ya nga xam ko waaye nit dina la war àndaat ak yow ngeen lëngoo di dem te fekk na lii la dal ndekete moom mii nga lëngool moo la ko teg waaye yeewu na yeewute gu fexe ba xam ni li la dal moo la ko teg ndax yeewuteem mu ne nag namimatan kisban wa kibriyaa rambaaj fen rëy riyan xiyaanatan ngistal wor kadal mira ak werante werante bu ci sa xam-xam àggee sax bu ko def parce day wàññi nit werante baaxul werante taxaasumu ahlin naar la waaw waa safara moom dégg naa werante wu rëy rëy rëy waaw la werante ba poñente waaw bu jàmm nekku rek lañuy werante mu ni waru yet waru yetal fadli alal axyaar yi ak it ñeetaane bu ëpp xool ngëneel ci keneen ci jàmbur ñeetaane ñeetaane lu waaye am nga ñi te ñeetaane day indi ki waaw motax li lay dimbali moy bu len nit rawee ci dara xawma lu mu don a mo raw la ci ci yenn ngeeneel yi fexel ba set lu gën loola nga raw ko ci fouf lolo. tax do lolo tax do iñan do ñeetaane xam-xam baax na lool waaye li Cheikh Zanoun li waxon ne xam-xam dugub la Cheikh Zanoun li le fanani frère la ci Cheikh Arabi li mbokam dal la dañ xam-xam dugub la ragal yàlla di tos xam-xam bu àndul ak ragal yàlla du tus kon xam-xam li muy rëy rëy bu la ko nit ëppee ba nga xam ni wóor na ni mënatoo koo dab yow fexeel ba li gën xam-xam fuuf te mooy ragal yàlla nga raw ko te fuuf kon du la déranger ti mukk ndax lu mu la mën a rawee rawe nga rawe nga ko lu ko gën fop wala nga sàkku njub motax lula way la waay bala nga koy ñee wala nga koy iñaane fexel ba lu am lu gën loola nga raw ko ci fuf ko iya do iñan do ñeetaane mune ru'yat al fadli ala al aghyari xol ngeenel ci keneen moy ñeetaane sohbat fasiqin bil atrar ak and ak ko xamni du la porter dara kacior dong la say say dong la budul lu mën munta ñak bul ko def moy tan tanal ko xamni au moins dina la porter dara Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na ki nga ànd ren ba déwén te woo ci moom xam-xam doolee ko woo ci moom xel doolee woo ku ci moom doolee ko ci moom ragal yàlla doolee ko ci moom courage yu liggéey na loo koy doyee wàcc ko ku mën a doon nag moo xam xarit la moo xam ab sëriñ la moo xam koo mën a àndal ren ba déwén te doolee woo ci moom xam-xam doolee ko woo ci moom ragal yàlla doolee ko woo ci moom euh, xel doolee ci moom euh, njub yooyu yëpp nee na boo ko dooleekuwul ci moom nee na jaratu ko mu ne suxbata fasiqin bi ratraarin tuubu alal fawri ida aznabtum yii nag boo ci nekkee bu la yàlla nattoo ba nga def bàkkaar nga rëccale def bàkkaar dawal gaaw tuub ko tuubu alal fawri tuub leen bu baax ida aznabtum bu ngeen defee bàkkaar te it duumu ala sukuuti in xadabtum mer yenent bi nee na ci seytaane lay jógee te seytaane ci safara lañu ko bind te safara ndox a koy fay ku ci merati na nga gaaw daw jàpp moom itam mu indi ci bayit bi nee na duumu ala sukuuti in xadabtum wala duumu ala sukuuti in xadibtum na ngeen sax ci noppi bu ngeen mere mu ni tamit duumu ala makaarimul axlaaqi na sax ci gën gaa teddi jikko nit day defar jikkoom yonent bi ci jikko lañ ko tagg waaw benn xakim nee na yàlla rëbb na ki nga xam ne kenn munta jëflanteeg moom ndax jëfam ju ñaaw waaye moom itam wóoluwul kenn ndax njortam lu ñaaw mu ne ngeen defar seen jikko mu ne tani bu jiddan ala nifaqi te ngeen moytandiku nu mu gën a baree na ngeen moytandiku lool naa feq na ngeen ko moytandiku kunu anil kalami sakitina, kuunu ilal xayraati sariina wax wax wax wax bu jibee wax gi jolli jolli jolli xamoo fu muy terminer te wax ja amul njariñ nee na noppi leen te daw wuti aw yiw كونو على الكلام ساكتين نوبيلين كونوا الى الخيرات جمتيو سارعين تيغاو اسامه عبد العزيز فال تي وقتان بنو ديف كرو مي وخ ا أه، ندي نتلي تي والو لم وخ مصيبه ييب تي واري تي waral ci lamagn wax mu ne qalu sakatta wa qultu lahum inna al kalaama li baabi charri miftaaxu noonu la ko indi bayit boobu waaw kenn ci boroom xam-xam yi eh, moo ko wax mu ni dañ ma ni yaa ngi nii noppi te ñu lay xas waaw ni lay xas di la wax lu ne ba bëgg laa dóor nga ni pat rek mu ni xaalu nee nañu ma sakatta noppi nga de waqad xuu simta te ñu ngi lay wax lu ne ñu ngi lay joxar bi dina la bëgg a dóor nga ni patt rek nee na xultulahu xultulahu mani leen innal kalaama naka wax li baabi charri ñeel buntub ay miftaaxu mooy caabi ja moo tax ma noppi am na beneen woykat bu wax ni eh, jaxaltu sukuuti mat jaran fa lazimtuhu fa in lam ajid ribaxan fa lastu bi xaasiri mu ni jaaltu sukuuti yi def naa sama noppi mat jaran mu nekk boutique fa lazim tuhu ma toog ca boutique ba fa in lam ajid ribhan su ma amul bénéfice itam falastu bi xaasiri du perte mu ni kunu anil kalaami saakitina kunu ilal xayraati saariina mu ni kunu lada solaati naahidina li awalil awqaati aajilina nee na na ngeen nekk di buur dem ci julli ca waxtu yu jëkk wa ca muxtaar ma te gaaw neena ngeen sàmm cër wal tahfadu rasa wa ma xawaahu wal batna mislahu wa ma waalaahu bi al laynayni wal udunayni wal farja wal lisaana wal rijlayni neena seen cër yi na ngeen leen sàmm de na ngeen ko sàmm na ngeen sàmm fal rasa sàmm leen bop bi wa ma xawaahu ak la wër bop bi bët yaag del xol lo wara xol xool nopp yaag del deglu lo wara deglu déglu làmmiñ del wax lo wara wax mu ne fal tax rasa sam len bopp bi wattu len ko wama hawahu ak lako wër wal batna ak bir bi ni ngeen ko sam mislahu ni ngeen samme bopp bi wama walahu ak yeden ya ak bir bi am nay cër yu ak bir ba de waaw dina len tuddu neena na yi ak bopp bi ani al aynaini wal udnayni surtout bët yi ak nopp yi nee na cër yit dend ak biir bi nag wal farja wal lisaana wal rijlay ni lisaana bi day delluwaat ca cër ya dend ak bopp bi wal farja wal lisaana wal dugal ko foofu waaye ma nga bokk ca euh, ma xawar ras waaye alfarj wal rijlay ni nag maa waalal farj la batt na la mooy yi nga xam ne moo jege biir bi tànk yi ci ngay dox dem ci musiba pëy mi ci ngay defe musiba nee na nag te ngeen di protéger wu ak di aare seen bopp sallu ala rasuli dil xamaami wa sallimu aydan madal ayami na ngeen di julli ci yonent bi boroom niir ya da ko doon niiral ba mu jëmee ca commerce ga wa sallimu aydan madal ayami te ngeen di sëlmal ci moom bis yëpp duumu ala al awraadi wal adkaari na ngeen di sax ci ay awraad di wird wal adkaar ak di zikar tudd yàlla fii kulli laylatin wa fi nahara bé nahaari bépp guddi ak bëccëg nee na na ngeen def sax ay sacrifice ci lan bañ a yem ci farata yi ngeen dem ci nawaafil yi ndax suumu talaatatan min al ayaami min kulli ma shahrin ala dawami su ngeen mënee weer wu nekk sax ngeen woor ci trois jours nee na baax na suumu talaatatan min al ayaami min kulli ma shahrin ala dawami mu ne tuubu ilaa baarikum min qablu an jaakumul mamaatu muddata zaman na ngeen gaaw tuub bu ngeen defee loo xam ni rëcc rëcc la na ngeen tuub tuub gu wér a wér a wér bu ngeen defee bàkkaar e, bala ngeen ñëw ci bala leen dee di dikkee diiru jamono maa ngi leen di fàttali numéro bi e, Safina FM 98 point 2 e, numéro téléphone bi 800.

déedéet yaa ngi ci Safina FM 98 point 2 Safina. waaw nee na ba tey ci yi ñu leen di sant nee na wa dayfa akrimu ida ataakum wa akrimul karima in waafakum nee na gan bu dikkee na ngeen ko teral ku teddit ku yàlla teral la ngeen nangu nga je lu ngeen ca mën a mottali mottali ko ca xam naa tey jii <clears throat> ikraamu dayf boobu tey képp ku dëkk Touba rek yaa ngi ndeysaan daw di dugg fu nekk ndax gan ñi lay fekk si wax naa ko sama benn mbokk bu baax ndeysaan eh, Cheikh Mbacké Madina eh, Diagne xasaayit di ku baax yàlla dogal tabaarakallaahu muy jàng xasida yi dëkk ca Touba ñuy waxtaan ak lu bari nag sama wëllëre la ma ne ko dëkk bu mel ni Touba boo fa dëkkee fan yii bu jubsee rek ah loolu la waaye mën a jàppalee du ci wàññi dara ndax kuy sa mbokk rek day dal di buur bëgg a ñëw dal seeg yow te ku sañoon gan du xam ci sa xar kanam dara lu dul lu rafet gan du xif gan du mar gan du rafle kon su ko de kerek fa dëkkee rek ndeysaan té do xam do mëna limité do mëna tok sa buntu kër di set ña nga xam ak ña nga xamul amna ci ño xam sax mom duñ ci xol sax xam la dañuy jadd rek ñew rek gis ni kër gi yaatu na rek ñu jadd kër gi lek ngi ah kon ku fa am kër rek togg war na la bernde war la te doole yemul moo tax dinaay wax ci conseiller bi sax sama sëriñ si ah ñoom lañu yaakaar waaye comme yàlla dogal na bari na ñuy dem ca ñooña la ñuy jawal nga xam ne seen maama woote walla seen seen maam sëriñ bee ko seexal mu def barke ci ñoom a ah ñooña ñu bare bari ñuy yóbbu ay teraanga ñooña lañu koy faral di jox boo dee nag taalibe boo xam ni sa daraja àggu ca ah yow moom yow ay jéem a taaba taaba rek ma ne bu doon tey jii dafay nekk wàllu administration wala loo xam ni gouvernement koy gérer lay daal di dugg ci kër mbàkke mbàkke yi rek waaw fu fukki caab saaku ceeb dugg rek ñu daal di jël juróom ya ne ah, kii kat gan ñee ko moom waaw comme gan ñee te dëkk bi day fes delle nag te gan ñi daluñu ci genn kër kër yi ñuy daal bari na xaaral ñu distribuer ko ñu bàyyi fa juróomi saako juróomi saako yi ñu yóbbu ko ci yeneen kër yi joxe ko fa su ko defee bu ko defee dëkk ba ku fa nekk doo sonn ku fa am kër rek ndax ku ne xam na ni ku fa am kër di nga ami gan kon nag fépp fuy ami gan rek teraanga war na faa dugg dara war na faa dugg loolu état mënul jox ñëpp waaye ña fay ñëw di andi di boroomi doole boroomi pas-pas di indi yemale ko ci benn kër sotti ko fa yeneen kër ya nga xam ni fees dell ak gan duñ ko gis. bu doon mbirum administration la wala lu ñuy organiser ci xelum kese noonu lañ koy doxale su ko defee rek fu ñu wàcce fukki saaku rek ñu diri juróom ña daal di koy yóbbu ci yeneen kër yi nii ah, kay gan ñi gani dëkk bee waaw ah, te kër yëpp ay fees kon nag na ku ne am donte nag tabaarakallaahu eh, sunu sëriñ su baax si dinañ koy def am na ci ñu bari ñu koy def tey lu fa ñëw teraanga yi dañu koy séddalewaat waaw tudd tur wóorul mais am na ci ñoo xam ne ci wàllum mbaax ak yaatu. lépp lu ñëw ci seen kër duñu ñu nda ñu wax ne rek surtout Serigne Touba laa wala doomam la ku ñu amanteel relation ci biir dëkk bi nga yor kër tey dinañ la yónnee sa teraanga ñu la dimbandikoo ko ndax gan ñi kat dimbandikoo ko ndax gan ñi lépp dañ koy séddalewaat tey xëy na ñu néew a néew a néew ñoom la ñuy indil ñu def ko ci ay magasin bàyyi ko fa ba yëf fii ñu continuer di ko dundee ba màggal gi dellu siwaat waaye ñu ci baree baree tabaarakallaahu dañu koy séddalewaat lépp dañu koy séddale ndax tabaarakallaahu ku baaxe ne xaadimul xadim bind li mu bind jàngale li mu jàngale ak li mu def ci yar ku askanu ci moom rek royteef nga war a doon tabaarakallaahu kon su ko defee ni ñu ko daan waxee actualité yi bu dara xewee ñu eh, wax ca lañ ci xam moo tax tey ñu génne xasida bi doon ko jéem a firi ak comme an nasiha la mooy laaye biir ñu laaye biir ñenn ñi tabaarakallaahu ah xam ne bis baa ngi ñëw a ah, kuy dem nga jël lépp yéene ko sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi fàttali numéro bi 88 628 10 95 88 628 10 95 ko defee tey ñu doon def waxtaan rek ci nasiha di fàttalee ni màggal gi jub si na baytu Sëriñ Musaa boobu nañ ko nafaraat nafiq yaa ngi dox di raam ngir jamono jàngal ida laqu ladina amanu bu ñu ñëwee Touba niroog waa Touba te bu ñëwee ci réew mii mel ni Kooba waaye di ngeen xam ne Serigne Touba mënee su koo ndax mënee su koo jommal ku taw lu day tex noonu la ko doon waxe bu ko defee tabaarakallaahu dinaay faral di wax ni jóg di dem fu toll noonu yiw wa fa ne mbaax ga fa ne leer ga fa nekk te dara la lu dul naa ay bernde ak ay kanet nit a xir rek waaye loolu mën naa ñàkk ndax boo ko seetloo tey junni rek mën nga cee am ndawal am ci fur am ci boisson te saw yaram du tas yow kay bu fekkee loolu dong dong dong junni bi jarul nga di ko paase mën ngaa toog benn yoon rek su ko defee di nga ci lekk yàpp dinga ci nekk fruit naan ci boisson bu la yàlla yóbboo nag ak leer ga ak yiw ga jar na loo am nga financé ko ci ngir ngir loola waaye bu loola ñàkkee rek dootu ko jarati nit a xër nag waaye junni bi ngay jël joxe ko paas mais yaa ngi dem lekkee loo xam ne doo fa lekk lopp junni boo ko lekkee ba pare boo dellu si waatee di di loo loo am jënde ko garabu tooy ah? boole ko ay ordinance ndax feebar nee loolu bu fekkee yàlla taxul kay nga fa toog benn yoon bu yàlla taxee nag ak leer ga yiw ga nee na loo ca dépensé jar na ko kon su ko jógati da ngay jóg te yàlla rek tax da ngay jóg te yiw rek tax da ngay jóg te mbaax rek tax ak ñi nga xam ne nii tamit dëkk bu toll noonu ku toll noonu samp ko woote woote bu rëy boobu nga jóg yow rien que pour dem jéem a seet koo jekku ba jël alalam tas yaakaaram nee na loolu e, loolu posen la te am na ñoo xam ne ñu waaj nañu jël seeni matuwaay yépp yoo xam ne nii dañu koy jël pour bu ñu demee seet nu ñu def ba bu ñu ko dagg sa poche li nga yaakaaroon na ziyaare ñu jël ko walla ñu jël sa portable walla ñu waaye ku ciy dem daal boo yeboo nga préparé boo amee sa portable nga jéem a jël code secret bi denc ko portable yi léegi sàcc ko moom erreur erreur erreur mugg ko ak dof waaw waaw léeg-léeg nga yor ko di wuyu ba yàgg ñun ne tiib téye ni la loolu nga yor di wuyu fekk localisé nañ la bu yàgg waaw surtout portable yi xew yi door a xew yooyu moom képp ku bëgg a dee ci kaso bi tàmbalil di ko sàcc waaw da ngay mujj léegi léegi ñu nëbb la jant bi parce que léegi système yi nga xam ne moom lañ lay détecté ba jàpp la dafa bari léegi soo ñu jëlee numéro bi yóbbu ko Sonatel diggante Sonatel ak police ak euh, opérateur bi nga xam ni fi nga abonné moo xam Tigo la wala Orange la wala wala wala Expresso dinañ ci def ay yitte yoo xam ne nii ci nu gaaw a gaaw a gaaw dinañ la jàpp nëbb la jant bi. kon tabarakallah ñu ngi yemale sunu kàddu fofu ba alkhamis ak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh الر